lu ak ñaas Mbàkke nga gis ñu ak nga bañ ñoo gis nga yëg lan nekk ak nga bañ ko yëg mooy si Touba Kanam si Touba def na bokk ko ci benn ma parti politique fukki at yi ci loolu lay soññi ndaw ci loolu la ñu nekk ni ndaw loolu lañ bëgg Mbàkke nga bu baax si ñun nga xam ne yëg nañ am na lu lay naqari ci dëkk bi des fois lu jóge waaye ñun lii di waa Mourou Ambiance ñoo ngi ciy góorgóorlu ñoo ngi ciy góorgóorlu bu baax ba nga xamante ni mbàkk bëggoo ko doome sa gis wala duñ la déggee suñu waajur yi nag ñu àndal ak suñu baay Mor Diak ak soxna Adi Diop yaay soxna Adi Diop ñoo jàll si ñi ñoo jiite téeméer yooyu ma lay wax ak juróom-benn fukk mbàkk tey suñuy tànk jàpp leen ne ndaw li ci biir dëkk bi te ñuy doon ci dëkk bi te ñu doon fi yàlla bu màgg fi nekk fi alxuraan tey ñu ci bëri ci ñoom di ay commerçant ñu ci bëri ci ñoom nekk ci jaay lu bokk mën a yokk dañoo am ay jafe-jafe lu toll ci at jafe-jafe yooyu xam naa ne la nguur wala ministre de l' intérieur di nga xamante ne nii moo yor kaaraange biir réew depuis at nii. ñun ndawi Touba dañuy am ak moom ay mbir yu yéeme ba may wax ak lu toll ci téeméer ak fanweer ñu ngi ci fa gën a yàq faa tabaskee daaw mooy Serigne Abdou Siga fii la ci wetu ñu ko mel ba fa gën a ni Serigne Assane Mbàkke bu Serigne Abdou bu Serigne Fallou def ko ñetti ak téeméer ak fanweer yooyu yëpp Mbàkke ma lay dugal waaye dañ leen fa tëjee daa nekk loo ne ni ay euh, mooy yëngu-yëngu politique yooyu ak ak xam-xam yi ci lu joxe ak ñenn ñi a tudd muy ak ak yow ndax man bii kan bàq la toll benn weer ci ginnaaw ma rek damaa def nangam ba yóbbu ma jur benn ba nga yëg ba ba ba Serigne may soog a bàyyi am ko téeméeri ndaw yoo xamante ne nii dafa gën maa ngi ma ne leen amuñu a jooy ci biir dëkk bi loo xamante ne nii sëriñ bi nga ko yëg mais eh, dara lu muy naqari te ñun ci ci ñun moo tax ma ne la man ne benn gudd laa benn yaakaar laa ñu dem ci sëriñ bi ñu yëg loolu ñu ñu ñu ñu ñu ñu egg ko. parce que lii moo waral tey suñuy tànk ñoom lay ñaanal nga am ngërëmal sëriñ Touba. amiin amiin ñoom lay ñaanal Mbàkke nga yàgg fi loolu sëriñ. waaw parce que ñun de suñu sax la mbëggeel gën a mbëggeel bu ñu la daw yu bëgg ah ñun de kenn duñu kenn duñu kenn duñu kenn duñu tax ñun de yow rek la ñuy topp yow lañ bëgg di la ñaanal ngay yàgg ci tamit. Moustapha Lo toogal màggale joli Moustapha toogal màggale Moustapha. waaw sëriñ bi mi ko alhamdulilah rabbil alamin kàddu yi nga yëkkati sëriñ bi mi ko alhamdulilah rabbil alamin nee na kàddu yi nga yëkkati dégg na ko xam ne nag njaboot gii ak njabootam la waaye li nga wax lépp. dégg na ko te incha allah lépp loo xam ne yitte seen yitte la yitteem na moom nii ndax li nga xam ne moom maanaam li bëgg rek mooy li ci dëkk bi muy war muy dëkk bi ñu sàmm ko waaye li ngeen dégg li ngeen wax dégg na ko dafa saytu ba lépp loo xam ne war na ci rek incha allah ñu des na ko taxaw dimbale ànd ak euh, mbooloo bi nga xam ne euh, Moustapha Cissé Lo Junior moom moo ko organisé ngir dem boole bi nga xam ne moom mooy Antoine Diome ci arrestation yu bari yi nga xam ne mooy am jamono bi fii ci diwaanu Touba euh, ñi nga xam ne nag jàpp nañ leen mu xaw a takku lool ñu def ak ful bu mag bëgg a dem te Serigne Mountakha ngir boole ko wax ko li nga xam ne moom moo nekk di xew ñi nga xam ne moom la kii di ministre de l' intérieur Antoine Diome di nekk di def ki nga xam ne euh, ñi nga xam ne ñooy ñooy ndawi Touba ci ay arrestation yoo xam ne ñoom jàpp nañ arrestation arbitraire ñu ngi jaakaarloo ko Cheikh Seck nekk responsable ci fii Cheikh euh, asalaamaaleykum léegi. waaw maa ngi lay nuyu baax yaakaar Serigne Touba gëm ko te doyloo ko ñu njabootu Serigne Touba gi ñoo ñu yar ba ñu màgg ba xàmme kon nag loolu lañ kon nag mënuñu woon nag jëm mënuñu suñu Touba waaye mënuñu xëy xëy xëy la si léegi nag dafa am ci njaboot ñoo xamante ne taalibe Serigne Touba lañ gëm Serigne Touba yaakaar ko ñii moo leen yar ñii njabootu Serigne Touba gi lañ leen mu am ci ñu bëri ñoo xam ne dañ leen a jàpp dugal leen ci kaso bi te li ko waral mooy ay affaire politique rek mooy seen position yoo xamante ne wane nañ ko ñu bañ leen koo nangul ñu jàpp leen dugal leen ci kaso bi boobu ba léegi am ñoo xam ne quatre mois def nañ ko ci kaso bi te nit ñu tëj dafa bëri parce que mas na deux cent personnes gis nga ñii gis si ginnaaw ñu yëpp ñooy seen i waajur hmm. mu doon waajur yoo xam ne boo xoolee seen kanam gis si kiis ak jaaxal Mm, parce que tamit ci jël xam na loolu nag moo tax loolu nag moo tax ñun ñu jug na dañuy dem ba xalifa général di Murid Sëriñ Mountakha àggee ko loolu waxtaan ci ak moom ñun kat bokkuñ ci ndaw yi nga xamante ne dañuy def aar bu ñu meree génn di daal ku ne wala naan suñu yar ak suñu taalibu mooy ñu loolu ñu koy def ci dëkk bi mm. waaye ki nga xamante ne mooy xalifa général di Murid boolu ñu ñu def nit ñëpp dem waxtaan ak moom ak di ko ñi ko sëñ ko sëñ Muntaxa fekk leen ñu ko sëñ Muntaxa daar ndax eh, ñi ko ñi nga xam ne ñoom ñoo initié initié lii maanaam dañ ko teg ci mbiru politique wala mbir mi dépassé na politique daal boo xam ne lii politique hmm. waaw boo xoolee rek xam ne du politique hmm. ndax Mm. te lii sore na ak politique parce que politique taxuñoo jóg mm. ay taalibe sëriñ Tuubaa yu jóg wax ay jàmbat yi ay taalibe sëriñ Tuubaa yu jàpp dugal leen ci xasam mm. loolu nag moo ñu fii waaye sore na ak politique ndax fii kenn gisu fi couleur parti wala leneen leneen luñ fi gis mooy ay taalibe sëriñ Tuubaa yoo xam ne ñoo nañ si mu taxaar ak li nga xamante ne moo ñu nekk xam naa après bu ñu génnee dinañ ci gën a wax waaw kon euh, dañuy jàllale rek euh, Cheikh Mbacke Thiam moom la ñuy jàkkaarloo moom tamit euh, Cheikh Mbacke ñu lay déglu rek dina la laaj ci li nga xam ne moom mooy initiative bi ngeen jël tey ngir ñëw ci sëñ Mountakha reete li nga xam ne moom mooy ñi nga xam ne ñu ngi leen di arrêté ci kaso bi lan nga ñu mën a leeral ci li xew. la jaar. mbooloo mi daje yëpp ñu wax ni tey dañoo jublu doon waxtaan pour ñëw ci tedd ci moom lu mu tax a nga xam mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg ñu jàppoon ay ndaw yoo xam ne dëkk lañ dëkk ñu war a ñëw fii sëñ bi sukku raam jéppul dëkk bépp pour yàlla def ñee ñu jàpp ci biir te ñu dëkk bi leen liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci ay daayira yu bëree bëri ñu fasati ko ci dëkk bi ñëw bi nag sukk ci moom jéegulu ndaw yooyu ñaanal leen it ñu bàyyi leen ndaxte ku ne xam na ne tey jii may wax ak yow nañuy am quatre mois foofu tey jii may wax ak yow dañuy am quatre mois foofu ci biir kaso bi mën na fekk tey ndax la diis la woon ba la diisal waaw kon jàpp naa ne moo waral suñu ñëw fii ci Daaru Minam ñu fekk si nga xamante ni mooy suñu yaakaaru tey ak ëllëg muy Cheikh Mouhamadou Mountakha mm-hmm. ñu jug ci nag dañ cee ànd ak ñi nga xamante ni ñooy waajuru gone yi muy seen yaay muy seen i muy seen i yaay muy seen rakk mm-hmm. ak ndawi Tuubaa mm-hmm. ak magi Tuubaa yi ñu ñëw fii ci Daaru Minam ku sukk sëñ bi na ko ñun amuñu lu dul yow yaakaar mu sukk yow it lépp loo ñu digal dañ koy def soo ñu tere dañ koy bàyyi mm. moo waral ñu ànd ak mbooloo lépp ñëw fii ci Daaru Minam mm. ngir que wax ko li nga xamante ni xew na ci dëkk bi wax ko li nga xam ne ndaw yi ñu jàpp yoo xamante ni yàgg nañ fa quatre mois ba léegi ñii man démb rek laa jóge jógal mm. doon leen seeti ñu sukk ci kanamam di ko ñaan mu nga xam ne ñu leen téye euh, ñu wax ko ñu bàyyi leen te yàlla rek tax te xam na ne ay ndaw lañ yoo xam ni fu sëñ bi woote ña nga fa mm. xëy na natt moo du weesu te yàlla mm. dugal na lii am na mm. dañ koy sant yàlla ndaxte sant yàlla gi ñu koy sant moo waral ñu ñëw daaru minam gi xam ne lu métti métti ak lu meex neex neex amuñu ko du sëñ Touba te moo fi sëñ Touba moo waral ñu ànd ak mbooloo ñëpp ñëw tey bu ñu gisee yeneen localité yi euh, bu ñu amee lu leen métti li ngay gis ñu koy euh, wonee seen na naxar mooy ay manifestation euh, ak ay pono yu mel noonu lan moo tax ngeen xalaatee pour euh, doxalee li nga xam ne mooy seen naqar ngeen xalaat ne da ngeen war a ñëw rek ci xalif général bi. xam nga boo gisee dañu sol nii rek. am na lu ñuy jàmm ci la ñuy dox ndax képp kuy dëkk. Hmm. doon ndaw muy mag muy gone. Hmm. say kilifa nañ daan dundee mooy moom ngay dundee mooy wesuwul ne. Hmm. jàmm lañ am ñun. Ah. te képp kuy dem ci Serigne Touba da ngaa am noo war a mel da ngaa war a am noo war a comporté woo. ba nga xamante ni. soo demee sëñ bi bu la gisee kat dina ne ah ndawi Touba yi de nii rek la ñu war a loolu nga wax yeneen dëkk yi ak Touba duñ benn Touba benn dëkk la ci àdduna waxuma Sénégal la ci àdduna benn dëkk la boo xamante ni benn kilifa la ñu déglu mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom la fi yàlla teg dañ koy ñaanal mu yàgg fi téwéer moo waral ñun du ñuy sànni xeer du taal du ñu lii li ñu war a def daal mooy ànd ak sëñ bi lu ñuy wax ñu dem ja lu ñuy tere ñu bàyyi mm. foofu daal farañ nekk ñun nekkuñu foofu fi ñu nekk daal mooy ànd ak sëriñ bi fu ñu woo ñu wuy fa lu ñu digal ñu def ko moo waral ñu sol yëpp lu yàq ànd ak nga xam ne ñoo xale yi mm. ñëpp pour que ñu génne leen ci kaso bee ñu fa nekk ndax liggéey sëñ Tuubaa mooy seen liggéey mm. kaso bee ñu nekk du seen kër jërëjëf euh, Cheikh Mbacke xam naa dañuy bàyyi ba mu génn rek après waaw ñu eggale li nga xam ne waxtaan